waaw ah, fi leen daan nuyoo ci émission guddi gi tey nag euh, exceptionnellement samedi ñëwaat ak yéen ci plateau spécial guddi gi bi nga xamante ne dañ fi war a waxtaane làmb ndax xam ngeen ne nag ñu ngi jëm ci làmb bu am solo boo xamante ne suba incha allah ci dimanche ji foofu ci arène nationale muy le 24 novembre ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante ne moom moo di Siteu muy diggante parcelle ak jàmm gën mu nar a nekk combat boo xamante ne nag sénégalais déjà ku ci nekk yaa ngi ci yee di ci yàbbi waaye tey plateau bi nga xamante ne euh, def nañu ko ngir gunge suñu ay téléspectateurs comme à chaque événement bu mag lu jëm ci wàllu sport dañuy ñëw fii waxtaanee ko ak su sunu ay euh, invité ci veyu combat yu mag yi nga xamante ne dafay am fii ci réew mi. tey nag ñu indi fa experts yoo xamante ne ku ci nekk ci ñoom sa xam-xam màcc na jëm ci wàllu làmb ñii ay mbër lañu ñii ay chroniqueur lañu yoo xamante ne ñu ngi liggéey ci làmb lu am solo tey ñu war a waxtaanee làmb ji di leen gërëm yéen ñi ñuy bàyyi xel actuellement ci canal 12 bu TNT ba Excaf mais aussi ci canal 11 bu TV d'Orange waaye itam ci bouquet canal plus ci canal 445. bi nga désormais mën ngeen ñu fa xel ñi aussi un téléphone fu ngeen mën na ci réew mi da ngeen ni application GTV ngeen mën ko am téléphone wala ngeen dem ci YouTube GTV Sénégal wala Facebook GTV Sénégal donc ñak seetaan GTV mënatul nek ci réew ci bitim réew nga ci Global TV Max la xel di leen fàllu waat na indaat ay gan yoo xamante ne ku ci nekk ci ñoom bu ñu waxee ci làmb mën nga koo nangu ndax ñoom ñu ngi ci biir mbir mi nekk ci centre bi donc loolu yëpp tey bu ñu ko boolee mooy plateau spécial débrief bi nga xamante dañ koy def jëmale ko ci combat royal bi nga xamante ne suba incha allah war na am ci arène nationale ci diggante moo Modou Xarañ loo ak Yalmin bi Siteu Xaasim gars yi nam mën nañ sa loxo nag Xaasim temps wéetaloo nga fi nag non nam mën nañ sa loxo nag

dama naan guddi gi rek lay amee. oui amul fenn. Mhm. parce que imaginer émission boo xam te ne day am du lundi au jeudi. Mhm. tey di samedi ku nekk mbokku téléspectateurs yëpp jaaxal na leen. Mhm. man bi ma dugalee statut sànq depuis dix huit sama téléphone amul jàmm. kon dañuy amaat mbégte ak contentement di leen jaajëfal waaye di jaajëfalaat initiative bi nga xam te ne yow yaa ko indi. ndax mënoon ngaa toog rek ni du ma ci dem. du ci liggéey. mais yi nga leen defal nii Mhm. kon maa ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu waa plateau bi Fallou maa ngi lay ziar bu baax. Mhm. di la jox sa waay tey di ñaan jàmm ci dëkk bi ak euh, salaam. di ñaan nag suba. Mhm. ki nga xamante ni moom la yàlla jox ndam li. mu ko ci jàmm salaam. ki nga xamante ni moom la daan. mu jug euh, accolade moromam te xam ni ndam li Sénégal la yam. bu Siteu daanee Sénégal la yam. Modou daanee Sénégal ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañ. maa ngi lay jaajëfal baax merci beaucoup. macha allah jërëjëf kontaan nañu. Euh, Xaasim sëñ Fallou maa ngi lay ziar. waaw Alaaji Yves. Mhm. maa bu baax a baax a baax. Mhm. di la jox sa wàcc wàccuwaay. Mhm. comme ni niñ koy defee ak gars yi saa su ne rek di nuyu tamit ñi nga xam ne mooy sunu invité yu màgg yi. muy Mbaytin ak euh, Boy Malika. ak Thierno Birahim. bu XFM Thierno Birahim bu ETDR. Mhm. Kanji production Kanji production. ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu Xaasim. Mhm. moom it nga xam ne comme ni nga ko waxee rek namoon nañ ko. Mhm. waaw loxoom saa su ne gars yi dañ koy laajte. kon noonu la demee ñu xamal ni gars yi tey moom plateau spécial la ñu wax. waaw ak euh, Modou Lo ak Siteu. waaye nag lamb la. te am nañ fi ñaari mbër yoo xamante ne i mhm. gars yi namm nañ leen namm nañ ci ah. làmb ji noonu la demee daal mhm. noonu daal lañ nuyoo ba ci kanam di ñaanal suñu waajur wu jigéen mhm. mu yàgg fi loolu te wér ñuy wax téléspectateurs yi daal nañ ñu xaar ñun ak ñoom veewu combat bi tey ba fajar dañuy nuyu blage waaw noonu la demee waaw tey dañuy nuyu blage war nañ sax tegaale meew ci côté bi waaw doon na ànd ak waxtaan bi tey du ko yàq que bu ñu naanee café tek ci ataya waaw jeexale ko ak mew ma sha Allah ak ataya dañuy dem ba fajar insha Allah day gëna neex rek waaw buñu buñu mëne am ku dëkk kër eh, jamm gën jamm ko jël insha Allah xol ñoom Euh, ban tolluwaay la ñu am actuellement. waaye tamit hmm. fële ca John Waar. waaw foofu aussi faw xool ku a incha allah est ce que dégguma ñibbisi na jàmm gën. ah ñibbisi na. ah, ah na. waaw après daal lu ci munti am daal. Hmm. xam naa dinañ dugal Jili Seck. Jili Seck incha allah lu ci munti moom. Hmm. waaw mu wax moom mooy tambour major Siteu. moom mooy tëggal sabar waaw moom sama xarit la man combat bi dama ci am problème parce que ñaari kër yëpp samay xarit lañu ndeysaan dama am problème ci combat bi mënu maa faral kenn ci combat donte parcelle laa dëkk parcelle laa yeewa Modou Lo sama rakk la mais Siteu daa fu mu toll ci man foo xamante dafa sori te moom moo ko liggéey ci man lamb la moo tax lamb ji nag daa ma maandu rek lamb ji doy waar la te xam naa ne moom affaire yi moom mi toj bu ñu demee ci kanam tuuti daal ba <laughs> gën a nuyoo uh-huh. dina gën a yaatu incha allah macha allah kontaan nañu Thierno ñu ngi lay ziar borom XFM borom ETDR. Kanji production sa xarit. waaw Kanji moom sama nit la. Mm-hmm. waaw te lu yàgg dëgg la. Mm-hmm. maa ngi lay ziar bu baax a baax di Yves. Mm-hmm. di am kontante ak mbégte. tey janook yow fii ci plateau bi. ndax yàgg nañ suivre. sa émission guddi gi. dañ koy suivre ba mu jeex. tey nag bu yàlla dogalee ñu woo ci plateau bi. dañuy am mbégte kontante pour ànd ak yow ci plateau bi. di la nuyu bu baax a baax di rafet sa liggéey. jërëjëf waaye di nuyu suñu fàllu. moom tamit ma allah kenn du moom. moom yàqul dara. ci euh, métier bi. dañ mm-hmm. naan ku yokkul da ngaa wàññi mais ma allah bi mu ci ñëwee ba léegi. Mm-hmm. mi ngi ciy yokk waaye tamit mi ngi bay waaram. dëgg la di nuyu la grand champion Mbaye Tine. Mm-hmm. Euh, di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di kontaan ci moom waaye tamit booy Malika encore une fois. maa ngi koy kontaanee bu baax a baax ndax tey Yves kontaante day am ak mbégte si si ñaari champion yi. ndax dafa am fu ma jaar ak ñoom ci XFM. am fu ma jaar ñoom ci làmb. kon tey buñ tawaatee bokk plateau. Mhm. day nekk lu nga xam tamit dañ ciy kontaan bu baax a baax. mais du nuyu sama PDG. Mhm. muy Kandji production Kandji borom ETDR établissement Touba Darou Rahman nit ku baax la san bi may dugg ci escalier léegi rek maa ngi mhm. déggante ak moom mais kanji nam naa ko nag waaw mi ngi lay siyaar na rek des rek ne maam jëndal ah, ah. la dégg nag te man yow kanji depuis ah. cité dammel la woon ca étage ba ca kaw ba léegi ah ci cee cee bu jënu quatre heures du matin ya ba léegi ah man yow Mamadou Koné Adama Bey mu di oh. Diallo <laughs> kanji li ngay wax ni li ngay dama ko jël arène nationale ci kaw uh-huh. ma fekk ko loge quoi uh-huh. ma jël ko interview uh-huh. mu ne ma mu ne ma mu ne ma site bi Fallou ban la. Mhm. ma ne ko DJ Yves moo xam moom. Mhm. mu ne DJ Yves. ma ne mhm. mu ne kooku dañoo yàgg ci site. yàgg damel la wax wax wax ci ay wax yu rafet. wallaay ca kaw ndeysaan

Uh-huh. ñu ngi lay ziar baax a baax mais làmb ji na ma la de. waaw da ngaa bees nii xees nii sax parce que boo nekk ci làmb dëgg waroo xees. waaw booy contact contact yu métti di waajal ko mbaam ma waroo xees mais dangaa xees fa yii daa xees fan yii de. <laughs> sant yàlla rek. Uh-huh. ginnaaw ba ñu sant yàlla. Mm, julli ci yonent bi. dañuy sant suñu ñaari waajur. Uh-huh. di sant suñu Serigne Cheikh Modou Gueye. di santaat suñu waajur bu baax. di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi. amiin di ñaanal waa géej waaye tamit ne ñoom ñiy suivre. Mhm. yàlla nañ ko mën a suivre bu baax. te taataan ko. di nuyu mhm. ci nekk ci plateau bi. Mhm. Thier Fallou yow ci Malika. ak sama doom ndey. boole. ma àndal ak ñoom Ndiaga ak ñoom Racky Ndiaye yëpp. di bëggee ñëpp waaw yaa ma gën a xam. macha allah jërëjëf kontaan nañu ci sa teewaay ah, daan nañ gis say làmb macha allah nga ci def ay am solo. waaw te loolu nag bu ñu ko gëjee gis du nekk lu ñu neex ah, ndax ñuy suivre làmb yëpp dañuy bëgg di gis euh, Mbaye tin mu ñëw am taxawaay bu am solo ci làmb ji Boy Malika euh, maa ngi lay nuyu kontaan na léeg-léeg ma romb la defe sa koñ ci kaw tali bi foofu ci buntu kër ga ah, ak affiche wu Boy Malika bi quoi ah, <laughs> ñu ngi lay nuyu waaw auzu billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim mhm. ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di leen nuyu yéen ñi nga xamante moom lañ fekk ci palato bi su mel ni DJ Yves xë sama waa ji Thier borom XFM Galas Baye Mbenn mbaytin di nuyu képp ku ñu fekk ci kër gi di nuyu estaafu booy Malika bi ku ci mel ni Zostier de Big Laay booy euh, Pape Yekini Ndongo Saw El Basir Cheikhouna ah di nuyu staff bi yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp di mhm. gërëm ñëpp mhm. di jaale suma euh, waa Malika suma mhm. benn frère koo xam ne ku ma jege la di ko jaale Malika bi yëpp muy Baye Seydi ndeysaan dafa wàññeeku démb yàlla na ko suñ borom xare ajana woyofal suuf ci kawam di nuyu Ouz mi nga xamante ni moom laa àndal ak euh, ki nga sama DG bi nga xamante ni moo ma indi muy élage mhm. moo indi ci otoom wax dëgg yàlla macha allah. Mhm. di nuyu ins dëgg ak or dëgg quoi. Mhm. waaw. macha allah jërëjëf kontaan nañu. Euh, ci kanam tuuti incha allah buur géwél aussi borom émission Leewtoo euh, dinañ ko jël en direct su ko defee moom aussi mu wax ñu euh, jàngatam ci làmb ji nga xamante ne fu mu nekk nii mooy actualité bi ah, politique bi xawoon nañu sonal fan yee passe waaye politique kenn waxatu ko ñëpp actuellement <laughs> ñu ngi waxtaanee làmb suba bi donc loolu bokk na ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla ci diggante Modou Lo seen dernière face to face moo créer loolu ak li nga xamantene euh, ciow li amona ci digeunte ki di euh, père ngat wata hein ak biram yaasi nga xam bu lekul ma ngay nan ñom machallah nga lolu ñu bari ñu ngi critiquer mais bokku na ci li jaay lamb ji ci 2 jours yi wala 3 jours yi mujjé yi ni donc lolu bokku na ci li nga xamantene euh amateur yi alors dinañ aussi dem fi nga xam moy parcel xol euh, ñi fa nek ñom tamit ñu wax ñu actuellement foofu ci unité diis naka la Modou Xarañ Lo di waajalee combat bi ak waa koñam comme ni mu koy defee heure bii boo demee buntu kër Siteu ma nga fees dell am nañu image yoo xamante dañ koo wane ci kanam waaye boo demee aussi unité 10 ma nga fees dell ah te Modou dama gis sànq benn vidéo ñu wane ko mu toog di jàng alxuraan ma ne Modou xel mi daal na de.